xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si et maintenant bon visionnage. mbokki internautes yu Sénégal 4 TV nuy waat nañu leen ziare leen bu baax a baax a baax jox kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay ñëwaat rek beneen yoon ci seen beneen vidéo ah. instant bi nag ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di mbokk yu jógee fële ca diwaanu Gambie ah, fas yéene daal di ñëw rek fii ci diwaanu Sénégal plus précisément ci diwaanu Touba ngir daal di nag teewe ji ah, màggal ga nga xamante ne ni moo di 18 safar niki talaata bi ñu daal di dëkkmal coono yu méttee méttee métti nag la ñu daal di nemmeeku rek ci yoon woowee ginnaaw bi ñu ñu dakkalee daal di aaye mboolem woto boo xamante ne rek daf doon jege foofe ca diwaanu Gàmbi ngir daal di riir mën a ñëw wutale si fii ci biir diwaanu tuubaa ah, tax na nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi nga xam dañoo bëgg daal di ñëw fekke si lu tuubaa gi ah, ferlo bi de dañu la ñu daal di jël nag ci ay situation yu méttee méttee méttee sax lañ ko daal di jële ndax itam nag seeni bagage ak seeni la nga xamante ne ay la ak yëf yi des yooyu yëpp dañoo daal di àndandoo ak moom rek daal di koy teg ci firlo bi daal di ñëw waaye nag coono bi sax nag foofee nag ba ñu daal di wàccee firlo bi daanaka fa la coono bi sax di door a tàmbale ndax itam nag pour ñu gis ak bët ak woto boo xamante daf leen di mën a jëlee foofee ngir indi leen daal dina leen di tëë ticc ba tax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ay vélo yi jakarta foofee ca diwaan wa ñoom sax bi ñëw ca diwaanu karang fi mu nii nag ñoom ñooy daal di siim seen mari ngañ waaw noonu dañ ko daal di mën a rek ndax itam nak seeni tarif bop lañu daldi tek ci digënté bu gatt gàtt daanaka bu matu 100 km bo ci daldi bëggé bëggee dal ci ak moto jakarta yoyé lu mu gatt gatt gatt da nga génné sombu 7500 japp 10000 francs lolu modi tarif bi nga xamanteni ni mom lañ leen di tek ñom moto jakarta yoyé waaye itam ci ab làqatoo ko bu méttee metti lañu daldi nek di ndax waaye takk dari dañ leen di ay rek bobu lay transport euh, mu nek nak benn situation bu méttee metti bo xamanteni rek suñu mbokki talibé yi nga xamanteni ni dañoo jógee ci diwanu gambi ngir daldi di bëgg dugg ci fi ci diwaanu Sénégal bëgg a jàll dem ba Touba ngir mbéy fekke màggalu Touba gi ñi ngi koy dund ci yoon wi ña nga fa toog nag ak sunu ndaw la nga xamante ne nii ma nga ñu fa nekkal lépp loo xamante ni rek ruusa na fa ne ay xibaar daañu leen ko dëgtal ci site bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV information en temps réel rek ngeen di dund. Sénégal ci Sénégal numéro Sénégal 4 TV mooy 67 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi sur le bouton abonnement bi teg bul fàttee activer. cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi def ay et maintenant bon visionnage.